waaw on a remarqué depuis un certain temps que ni combat yu bëri dañ koy reporté à cause des blessures mm-hmm. yenn yi peut-être euh, promoteurs yi la wala ci mbër la mais d'après li ñu remarqué date boobu léegi blessures yi moo gën a récurrente ci mbër yi. ok waaw. blessures yi. waaw blessures yi lañ wax ne moo gën a récurrente parce que boo xoolee lu mat quatre wala trois combats annulé nañ ko peut-être ci préparation bi la ci temps bi la peut-être euh, dañoo pareegul. lii ñi bari na daal xamuñu exactement lan moo tax. yow en tant que coach pourquoi mbër yi bu ñuy préparer seen ay combat rek di di di gaañu quoi. alors préparation xam nga dafa dafa am ci ay fondamentaux yu mu tege. Mhm. may jël ay tuuti kàddu yoo xam ne suma suma xarit suma nijaay Max moo koy wax li mu yàgg a wax ñu koy reetaan li mu naan mbër du préparer dafay pare moment bi da ngay xam ni il a raison il a eu raison sur le monde lu tax. parce que mënoo bàyyi ba am combat. Mm-hmm. doo ko dem di entraîner ci parce que loolu constance du am parce que entraînement dafa laaj assiduité. Mm-hmm. dafa laaj ponctualité dafa laaj régularité ak stabilité donc bu fekkee ne fan yooyu yëpp dajewul ci ki nga xam ne sport de combat lay def bokkul ak sport collectif. Mm-hmm. donc bu fekkente ne da nga bàyyi ba am combat ñu ne la combat bi c'est dans deux mois fekk yow préparé wu woon avant les deux mois. nga ne bëri bëgg dem entraîné ji. day métti da ngay gaañ sa bopp. Eh. parce que réveil musculaire dafa am ci yaram doomu aadama. Mhm. et quand tu travailler li nga xam ne li ñu koy wax cardiovasculaire ak cardiomusculaire mu nekk ñaari mbir yoo xam ne dañu war a ànd pour que l'athlète soit en forme. Mhm. et gis nañ ne mbëri li si ëpp seen cardiovasculaire bi ni ngi ko war a liggéey duñ ko liggéey mën nga am habillage yu yor yaram bu nekk nii ñu ne musculairement il est il est bien mais ban masse musculaire nga am. est-ce que c'est pondéral volumineuse wala masse musculaire sec nga am wala kooru athlète pour mën a liggéey ak lool donc soo bàyyi ba combat am nga ne bëri bëgg dem commencer di entraîner te yaram dafa mel ni une plante mm-hmm. benn graine autant pour moi booy semer graine bi trois jours ni ñu ko jàngee ci ci ci ci SVT trois jours fi mu war a toll six jours neuf jours douze ba ni muy màggee nga gis fleurs yi génn racines yi commencé c'est la même chose que chez la personne parce que bu ñu fàtte ne le corps humain est constitué de huit maisons mën nañ ko tuddee noonu juróom-ñetti kër la yaramu nit am donc ci biir juróom-ñetti kër yooyu y a cinq cent ou six cent trente groupes mus muscles yu ci nekk ci huit groupes musculaires yooyu donc benn bu ci nekk pour mu jox moromam du benn fan du ñaari fan moo koy liggéey mhm. c'est un travail à long terme et fixe nga am benn chronogramme wala benn programme d'entraînement boo xam ne dafay basé wu ci la récupération l'alimentation et la programmation de l'entraînement justement pour que muscle bi mun a nekk au top saa yoo ko yeewee mu siggi xool la nga bañ ko yee brutalement yee brutalement mooy muscle boo xam ne mi ngi nelaw pendant deux trois mois nga xëy rek bëgg ko sëf lu mu attanoon da ngay <laughs> loolu mooy première chose